ñaar ci góor asalaatu wasalaamu ala ashrafal mursalin sayyidina Mawlana Muhammad sallallahu alaihi wasallam in my life I'm happy and then of course I'm among, I happen to know that I'm among the richest people in this very world, simply because I woke up this day and find myself on this to come and make a ziyarat on this a very great mosque of Toba. I'm very grateful to Almighty Allah to spend my life again every time to be coming here and there at least to come and start praying and praying and then place and may Allah send His karamat, send His quwwat uh, and protect the lifespan of all the people concerned on this. Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah. My name is Samadi Garba. I'm uh, from Zapara Nigeria. And I came from the Medina Bay to come and uh, taziyat on Maulana Shoaib Ibrahim Awanias over the lost or the passing away of his great Khalifa. That's Imam Tijani. Yes, we are 26 in number and we have been sponsored by state government of Zamfara State, that is Matawala Maradu, to come and represent for this condolence. So I take my time because uh, my Khalifa, Khalifa Kadibullah Sheikh Nasir Kamara, has instructed me that whenever I came, I try and come and see you, visit you, and extend his appreciation, and then, of course, apologize for his inability to come at that right time over the invitation which people have sent for him. May Almighty Allah bless us and then uh, uh, for uh, uh, our life. And uh, sir. I have seen what I have never seen in my life at all. both the complex, the residential, the schools, the mosque, and uh, even the Rawlat itself is the best of my life that I have ever seen there. Alhamdulillah, mashallah. I'm grateful. Mashallah, ma'asalam, bisalam. Alhamdulillah. Thank you. ci gàttal daal gannaaw bu mu siyaare wax na ne li taxan mu jóg ay tànkam mooy ñëw Madina Baye eh, ci ndigalal Habibullah ak beneen mbokkam Xaribullah Cheikh Xaribullah ñoom ñoo ko yebal mu jaale si waa kër sëñ Ibrahima ñas Euh, kii seen kilifa gu wàccoon liggéey léegi nag ba muy ñëw nag Cheikh laa wax na ko nekk loo mën a def na nga dem Touba siyaare ji ma te siyaare ji sëñ Touba moom nag bi mu ñëwee nee na lu mu fa daan dégg ak lu mu fa daan gis euh, lu mu daan dégg ci Touba wala mu koy xool ci image bi mu ñëwee gis na di ko fawxa nee na ba ci jumaa yi sëñ Touba ji nee na lim ci gis mosu koo gis fenn fenn fenn fenn waaye tam nee na fañ ko dalal la muy daara Hizbut Tarqiyyah wax na ne teraanga jam fa gis ak euh, la fa liggéey bu jëm ci islaam muy jàngukaay ya muy jàkka jañ fay liggéey ba ci tele ba lépp daal nee na loolu tam wax dëgg mosu ko gis fenn ndax xam na ne itte ju kawe kawe la lool daal ci tënk wax na ko nee na bëgg na lool nag te fu mu demit mi ngi ñaanal Touba ak waa Touba ak ki ki sos dëkk bi di Xaadimu Rasuul mu ne mi ngi ñaanal ñëpp ñu am bar teraanga ci barke borom béréb bi di sëñ Touba nee na xolam sedd na guy nee na he's very very happy more than happy loolu nag mooy sama mbégte kawe na lool mu ne bi mu fi duggee la ko la yëg ci xolam te noonu la ko amee ci jëmmam itam jërëjëf. Sibri wa الباري وثبته بالهادي الوفي